di Cheikh Mouhamadul Amin Baara wax nañu ne keroog bi mu gane jamono la Cheikh Mouhamadul Amin njëkk a def mooy dafa yónnee ndaw ca sëriñ Touba yëgal ko ne ko am na gan gu fi ñëw sëriñ tubaa joxe ndigal nee nañu ko tuddee Abdoul Aziz at mi nga xam ne yit ci la feeñee dafa nekk at moo xam ne mu am solo la ci yoonu murit kenn du ko fàtte ndax jàmbaar yi ci feeñ. ku mel ne Cheikh Abdul Ahad ak Cheikh Abdul Qadir bi nga xamee ne gane na jamono at yu néew la ko Cheikh Mouhamadul Amin téye jébbal ko Serigne Modou Moustapha mu yóbbu ko ci daaray alxuraan ja nga xam ne moom Serigne Modou Moustapha moo ko taxawaloon ca Tindóoti euh, te ki jiite woon daara jooju ca jamono jooju mi ngi tuddoon Serigne Makhtar Ale Lo nekkoon boroom xam-xam boo xam ne ku ràññiku la woon ci xam-xam ak ragal yàlla li ëpp ci li nga xam ne moom la sëriñ Modou Moustapha daa toppatoo ci wàllu diine ak xam-xam moom sëriñ Maxtaar Allé Lo moom moo ko daan toppatoo moom nag nijaay la woon ci sëriñ Abdul Aziz Bara foofu ci daara jooju bari na ñu mu fa fekkanteel ci ay bokkam bokk na ca sëriñ Modou Bara bokk na ca sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké bokk na ca sëriñ Mbacké Madina ak ñeneen ak ñeneen foofee fa la mokkale alxuraanul karim ci diir bu gàtt sëriñ Modou Moustapha andi ko Touba boole ko boroom xam-xam yu mag yafa nekkoon ku mel ne sëriñ Abibu Mbacké ak sëriñ Mbacké Bousso yàggul dara rekk mu géeju ci mbooleem xam-xam yi rawatina xam-xami diine yi muy sharia ak la ci aju boole ko nag ak xam-xamub xaqiqa bi nga xam ne mu ngi ko donne woon ci wajuram Cheikh Mouhamadul Amin bi loolu lépp dajee ci moom nag ci la yeesal ak jaayanteem ci Cheikh Modou Moustapha soobu ci yoonu tarbiya mel ci moom ni nga xam ne rek noonu la waajuram Cheikh Mouhamadul Amine meloon ci Serigne Touba bi nga xamee ne mi ngi tarbiyewu ci ay loxoom moom Cheikh Mouhamadul Amine dafa waxoon ne wa ha ana bayna yadayhi afaalu maa qaala kal mayti la daa man yaxsilu mu bàyyee boppam Serigne Modou Moustapha mel ci ay loxoom ni néew di mel ca loxoy ña koy sang sax ci loolu ba Serigne Modou Moustapha gërëm ko seeral ko bi mu ko gërëmee ngërëmal waajuram Cheikh Mouhamadul Amin mu boole nag ñaari cër bu jëkk bi di li mu doon ne ci waajuram Cheikh Mouhamadul Amin bi ci des di li nga xam ne jëlee na ko ci Cheikh Moustapha mu def ko ci moom ci xam-xam ak yar bu rafet akuk njàmbaar mu nekk nag kilifa goo xam ne dafa fees dell ak xaqiiqa boo xam ne yar bu rafet ak sariya bu mat sëkk moom lañu ko wadde loolu moo taxoon mu nekkoon jëmm joo xam ne dafa ràññikoon ci ay jukko yu rafet te sell ndax ku ne xam na ne sëriñ moo du Moustapha lu nekk ci moom rek sëriñ Tuubaa ko ci def kon nag képp koo xam ne moo la yar waajal la la muy def ca yow mooy la sëriñ Tuubaa defoon ci moom rek rawatina nag ku mel ne Serigne Abdoul Aziz ak yéene ji mu amoon ci moom ngir mottali ci wëllëreem ak Cheikh Mouhamadul Amin loolu moo tax boo dee jàng dëgg dunduk Cheikh Mouhamadul Amin ci aw doxinam ci taalibe dangay gis ne doxin wacca mag ña sëriñ Touba yar daa doxe bàyyiwu ca dara naka noonu itam ci fonk ak bokk ba tey ci am yërmande ci nit ñi ak dimbali leen lépp lu mu ci def rek boo ubbee téere yi Serigne Touba yi walla nga yër ay ndénkaaneem da ngay fekk loola mu ne ci biir te noonu itam saa yëram selle woon ba ku ko mas a gis xemmeem ko noonu la baatina meloon te loolu di lu am solo ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne al adabu adabaani adabu sëri wa adabul alaaniya أدب السر طهارة القلوب وأدب العلانية حفظ الجوارح من الذنوب تجن أك يار نيار خادلا ببير بي أك ببيت بي ببير بي موين غارة سلال سخل أك سخل بدوتي خلات دوتي دفلو نقر يالا ببيت بي موين غا سامو سيتير بدوتي دف دوتي فخي لو خمني لولا جيرو المرمسون برملا برملا ba tax na kon nekkoon na koo xam ne mboolem ñi mu bokkaloon jamono euh, ñépp ñoo ko soppoon ñi mu daan jëflanteel it ñu bari lañu te wuute waaye ku mu mës a jëflanteel rek nawoon nga ko te ñooñu it ña ca jiitu moo njabootu Cheikh Mouhamadul Amin di ay bokkam yi sës ci moom dafa leen soppoon lool war maa loon leen lool ndaje mu mag mu mas a am boo ñëwee ca wetam fekk fa mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Amin gi ñu ne ci wetam daana leen faral di dajale lu bari ci ay jataay di leen berndeel di diisoo ak ñoom ñoom itam ñu tegoon ko fu kawe ba tax na fu mu mas a taxaw rek moom Serigne Abdoul Aziz ñoom njabootu Cheikh Mouhamadul Amin gépp ànd nañu ak moom taxaw foofu muy liggéey yu mag yi nga xam ne daana ko amal wala lu mu mën a doon waxtu wu nekk rek lu mu woote njabootu Cheikh Mouhamadul Amin gi ñooy nekk ca kanam li ëpp ci ñoom it tudde nañu ko ay doom jébbal ko te loolu lañu ci jublu mooy wone rek fi ñu ko teg ak cër bi ñu ko jox ndax ku ne xam na ne nit amul lu ëpp solo ci moom doomam amul dara lu gën a sori ci xolu doomu aadama doom kon ki ko tuddee jébbal la ko kooku am na fu mu la teg fu kawe te loolu njabootuk sëriñ Baara gépp wala boog ñi ci ëpp seqoon nañ ko ak sëriñ Abdoul Aziz moom itam yàlla dogaloon mu nekkoon borom gis-gis bu sore gis-gis boo xam ne daf ko womatoon jëme ci mu xam ne jamono ngi ñëw joo xam ne jamonoy bennoo la jamonoy jàppalante la jamonoy déggoo la mu teel a yar njabootu Cheikh Mouhamadul Amin gi ci loolu fexe ba def ci ñoom mag mu nekk. di yeureum ka ko fete souf waye ndaw lu nek yit wek jox cieur ka nga xamne moko fete ak mag te loolu ku ne xamna ne mo deppo ak li nga xamne ne la serigne touba beggol njabot gu nek diko doxe moy limu wax ne tariqatul adabi rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawkhirul kabir yonte sallallahu alayhi wasallam waxoon ne laa tazaalu ummati bi khairin ما دام صغيرها يوقر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها kon tey bu ñuy waxtaanee jeexital yi nga xam ne Serigne Abdoul Aziz bàyyi na ko ci jamono ci wàllu yar ak ci def ci Cheikh ndax amul genn kër gooy dugg ci kër Cheikh Mouhamadul Amin lu dul nga fekk fa kenn wala mbooloo moo xam ne moom Serigne Abdoul Aziz moo leen yar moo leen taxaw te ñooña it foo leen fekk waxtu wu nekk ay tànn ca tànneef lañuy bokk te taxawaay boobu moo dafa fekk ne lu baax boo koy def danga koy tàmbalee ca la la gën a jege. muy say bok ndax alquran da fay wax ne wa ulul arxaami ba'dhum awla bi ba'd waye Serigne Abdoul Aziz noonu mu melone ak njabotou Cheikh mohammed al Amin noonu la melone ak wa keur Serigne Touba gep rawati na nak bayam yi nga xamne ño ñoo doon doomi Serigne Touba yi dafa mel ne cofeel gi mu amone ci ñom da ko donne rek ci Cheikh mohammed al Amin ndax Cheikh Mouhamadul Amine daf daa wax ne doomi sëriñ Touba yi dama leen a sopp ngir sëriñ Touba xoolewuma leen ay bokk waaye dama leen di xoole samay doomi sëriñ ba tax na fu mu mas daje ak ñoom ci barab dana leen jox yi ju mat sëkk teral leen taxaw ci ñoom ba ñu xam ne ba seen xol set loolu bokk na ci jukko yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Amine ràññi ko woon na ci ci fonk doomi Serigne Touba yi Serigne Abdoul Aziz it cofeel googu da koo donn ci sax Mouhamadou Lamine doxe ko kenn ku nekk ci ñoom ci doomi Serigne Touba yi wuutali woon ak ñaar ñi nga xam ne ñooy lépp ci moom muy Cheikh Mouhamadul Amine mi nga xam ne moo ko boole ci Serigne Touba ak Serigne Modou Moustapha mi nga xam ne moo ko waajal yar ko lu nekk ci moom mu def ko ci. doxin woowu nga xam ne moom la daa dox ci digganteem ak Cheikh Moustapha lépp lu mu ko daan defal te mu mas a jëm ci liggéeyu Serigne Touba yi ginnaaw bu Cheikh Moustapha làqoo yi dafa wéyal loola ci Cheikh Mouhamadul Fadil noonu it wàññiwu ca dara lu ca nekk da ko yokk saa su ne waaye mosu ko wàññi naka noonu it la meloon ak Cheikh Mouhamadul Basir jëwriñ la ko defoon da ko daa faral di sant ay liggéey mu di ko ko defal. nga gisit ne bo tanne nak ku melni Cheikh Abdoul Ahad da ngay gis ne mom digganteem ak ak Cheikh Abdoul Aziz dafa amone ak jagg ndax mom dafa melni rek dafa weyel ni mu melone ak Cheikh Abdoul Ahad ni mu melone mom Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadul Amin bara Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadul Amin dañoo jaxasoo woon lool ba taxna Cheikh Abdoul Ahad lu bari. ci ay jataayam daana ci faral di tudd cheikh amin di ko waxtaane ngir takkoo gu ñu takkoo woon ñoom ñaar loolu it moom la wéyal ci digganteem ak abdul aziz daana jóg di ko gane ji daana ko faral itam di sant ay liggéey naka noonu it bi yàlla dogalee mu toog ci xilaafa gi moom cheikh abdul ahad daana ko faral di woo di diisoo ak moom ku mel ne nag Cheikh Abdoul Qadir moom digganteem ak Serigne Abdoul Aziz dafa bari ay jagle ndax seeni mbir dafa dëppoo ci lépp ñoo bokk mel na at mu ñu gane àdduna ñoo dendoon ay kër daa gise waxtu wu ne Serigne Abdoul Qadir saxalaloon na ko at mu nekk mu defal ko ngan ca Louga te ngan googu ku ko mës a tewee gis na nga xam ne noonu la ci sëriñ Abdul Aziz di taxawee ak mbégte moomu cay am nga xam ne sëriñ Abdul Xaadir am na ci moom sëriñ Abdul Aziz wàccuwaay boo xam ne foo ko takk rek ci kawe weesu na ko naka noonu yitam liggéey bu ko mas a yittee sëriñ Abdul Aziz la ko daa sant mu daa ko def def koo xam ne da ko daa boole ak mbégte mu mat sëkk li gën a firndeel loolu seenu dëppoo ñoom ñaar mooy boole gi nga xam ne sunu boroom dëppale na ko seeni mbir ñu bokk genn ayu bis goo xam ne ñoo ànd wujji seen borom loolu it ay takkal yu bari na ci waaye la ci ëpp solo mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne almaru maa man ahabba kon yàlla na yàlla yokk seen leer ñu gis it ne moom Cheikh Abdoul Aziz ginaaw bi nga xamee ne Cheikh Abdou Khadir génn na àdduna li diggante bay xat-xat ak lim koy fekk ci ay wéradi wéradi ak li yëf yi diis diis ci moom teewul ànd na ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Amin dem fekki Cheikh saliw jëbbal ko boppam jëbbal ko njaboot gi wanale ko ak Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo toppoon ci moom door dem fan yu néew la ca teg génn ba bis ba daataan dellusi wuy ji na boroomam moom Cheikh Abdoul Aziz mu mel ne kon loolu nekk na loo xam ne lu rafet la lu mu doxale ci digganteem ak doomi Serigne Touba yi naka noonu it ñi nga xam ne ñoo ko féete woon ci wàllu kilifteef tey ay doomi baayam ñoom it joxoon na leen cër bu cërub kilifa te loolu mi ngi ko tàmbalee woon ci magam Serigne Modou Bara moom daawul réeroo ak moom ci dara. am na leetar boo xam ne moom Serigne Abdoul Aziz moo ko bind Serigne Modou Bara daf ko caa wax ne ko waxtu wu nekk dinaa la ci fàttaliku junni yoon ngir sopp gi ma la sopp loolu mu ngi ci jublu won ko rek ne ko moom Serigne Modou Bara mësula jóg ci xelam du jóg ci xelam senn saa ngir cofeel gu mu am ci moom noonu it ni la Serigne du Bara meloon ci moom. waxtu wu nekk daana ko gane ji rawatina nag ci jamono jooju nga xam ne mi ngi Busra fekk na ko fa ba tey at mi nga xam ne fa ca ko fa mujj fekk daf ko bindal genn xasiida goo xam ne daf ko cay ñaanal di ko ca sant di ko ca gërëm xasiida googee mi ngi ko tudd mi ngi ko mi tàmbalee ci li muy wax bayit bi muy wax ne barakallahu fi busra wa baniha xasida gu gudd la jataay bi du maye ñu sori ci lool waaye defal na ko sëriñ Abdul Aziz boole ci ñaar di ko sant di ko ñaanal noonu it la meloon ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñoom ñaar seen diggante yaakaar naa ne waxtaane ko la ca gën mooy ñu beral ko jataayu boppam ndax la ca nekk ci ay njariñ dafa bari la ca ne ci ay bind it ak ay tegtal yoo xam ne nit ki mën na koo jariñoo dafa bari waaye li am solo mooy lépp lu rafet rek ci ànduk bokk ma nga ca seen diggante lépp lu rafet itam ci dunduk sëriñ ak taalibe ma nga ca seen diggante lépp lu rafet itam ci dundal kóllëre gi nga xam ne moo doxoon ci seen diggante ñaari jur ya loole ma nga ci seen diggante boobee euh, kon nag sëriñ Abdul Aziz fi mu tegoon sëriñ Cheikh kenn nattabliwu waaye nag li muy kawe kawe kawe fa ko sëriñ Cheikh tegoon moo ko raw ndax sëriñ Cheikh ku ne xam na ak ñàkk jotam waaye fu sëriñ Abdul Aziz baara ma sa rek fekk na ko fa ba ci Touba ñaani gi nga xam ne moo gën a sori ci ay dëkkam fekk na ko fa ànd ak mboolem njabootu Cheikh Moustapha yi keroog bi mu dikkee ca biir ngan ga moo jëlal boppam kàddu seere fa ci Serigne Abdoul Aziz ci kanamu mbooloo mi seere yoo xam ne néew nañu ñu dégg ci moom mu di ko yëkkati jëme ci nit noonu it la meloon ak Serigne Mbacke Madina mu mel ne moom digganteem ak ay kilifaam boo ko dee jàngat dangay gis ne dafa taxawal daf ko taxawaloon ci ak wegeel gu mat sëkk ku mu ci masa ca jataayam wegeel googu da ci daa feeñ jataay bu yaru boo xam ne rek ni ko sëriñ bi misaale ci ni mu ko waxee ne fa xaytuma jaalastahu fa bi waqaar jaalishu daa sakinatin maa teqaar noonu rek la ko daa doxalee fu mu mas a toog kilifa jataayam ba lu mu gàtt-gàtt rek ku fa teew ku ne da nga fa jële ay bind ci wàllu yar ak teggin ak naka la nit ki war a comporté woo ci kanamu kilifaam soppoon leen itam cofeel goo xam ne lépp lu mu mas a jëf wala mu wax ko rek feeñal na ca cofeel ko ak itam sax gu mu saxoon ci di leen liggéeyal liggéey yu bari te wuute yooyu it mënees na ko tënk ci daanañu ko sant defar ay kër mu di leen ko defaral wala ñu di ko yeesalloo ay kër mu di ko yeesalaat loolu jëflante na ci ba tey ak ku mel ne Serigne Bassirou ak ku mel ne Serigne Abdoul lu mel ne liggéey ci wàllu ay tool loolu it jëflante na ci ba tey ku mel ne Serigne Abdoul Ahad ak Serigne Souaib li ko waral it dañoo dëkkan dañoo nekkoon ay dëkkandoo ñoom ñaar waaye balaa masaan wax dara ciy toolam bu dee Serigne Souaib bu ñu ngi bokkoon dëkk mbaam jigéen ci jamono jooju sëriñ Abdul Ahad daawu fa jóg booba mi ngi dëkkoon Daaru Salaam bukki barke waaye waxtu wu ne sëriñ Abdul Aziz balaa jublu ci toolam day taxaw ci seeni tool ba pare nag at yi nga xam ne nag moom da ko daa dajale di leen ko jëbbal kooku moom ñoom ñépp la ko matale woon bàyyiwu ci woon kenn li am solo nag ci jëfam yooyu li mu yéeme yéeme mooy lu mu mës a def rek yàlla rek a tax ak Serigne Touba dabu ngërëmal Serigne Touba. ndax mësula wutal àdduna place ci dundam euh, loo gis mu jëf ko lu mu rëy rëy rek dabu ngërëmal yàlla ak loolu Serigne tubaa moo tax mu def ko lii firndeel loolu it mooy euh, fi mu tolloon ci jamono jooju ni mu daa wàccee boppam ci colam ak ci kanamu ay kilifaam fekkoon na boobu ci ñi ëpp wërsëg ci Touba ci la bokk fekkoon na boobu ci ñi ëpp mbooloo ci Touba itam ca la bokk loolu dafay firndeel ne kon lu mu doon def yàlla rek a tax ndax amul dara lu ko jàptoon muy def dara ci àdduna loo xam ne sago taxutoon loolu di lu mat a jànge ci lu mu su ko defee kon euh, loolu mooy melokaan yi nga xam ne amoon na ko ci digganteem ak njabootu Serigne Touba gi mu dund ci loo xam ne nag yéege na martabaam ba yóbbu ko ci martabaam murid saadix ndax mbooleem melokaan yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ne ku mu dajee ci yow doon nga murit saadex melokaan yooyu yëpp daje na ci Sëriñ Abdul Aziz ci jëfam ak ci yéene kon xam naa loolu mooy xaaj bu njëkk bi ci waxtaan wi ñu taxaw ni nga xam ne noonu lañ ci jote woon ndigal ci kilifa yi su ko defee ñu dellu siwaat ci xaaju ñaareel bi moom itam tënk bu gàtt lay doon

sëriñ jii di wax ji na lool indi nga diggante sëriñ Abdoul Aziz ak ay bokkam waaw sëriñ bi nga ñaanal ko sëriñ maam Mor Sarak joo ji de boo toogee rek toog na te suba mooy jiite moo doon di Cheikh Mourtala di Mbàkke yàlla yàlla guddal fanam ñu ñaan nit ñi toog dégg nañu ci sëñ Abdul Asis ak ay maram dégg nañu ci sëñ Abdul Asis ak ay baayam waaye li nga wax ci diggante sëñ Abdul Xaadir keroog ba mu ko ganee bay dem loolu fekk naa ko maa ngi toog kon sëñ Abdou Aziz yàlla na koy wax fenn sëriñ bi bi muy lim sa doom yi sëriñ Cheikh Mbacke mu ngi sëñ Dame Atta mu ngi Cheikh Ibrahima Mbacke mu sëriñ woon waaye gis naa ko sëñ Dame Atta soxna ju baax ji moo koy wax sëriñ bi nag bi wax ci la Moussa dugg te sànq booba ñëwagul maa ngi doon cité ay jëfam tant bi nekk moo ko liggéey ni bu ma doonee meeru nag premier sama premier génn di ñaari lakkay Sëriñ Tuubaa du ma ko manqué aéroport su la déglu léegi aéroport ma wàcc ni du ma jaar fenn du ma jàdd fenn. ndax rek laa jëm sëñ bi ma leeral la barki démb la jóge Touba ni Cheikh si bi Maxtaar sama ju baax nga ndox mii ni ma dénk ak ni ma yéene ak ni ma bëgg a liggéeyal sëñ Touba danaa fexe leen ba ndox mi nekk Touba Mbàkke nu ko ñaanal lépp yëpp am na yéene ci Touba tey foo mu wàcc sori na mu ne naa doon jëm Ndar waaye fay yaa yéeg liggéeyal Serigne Touba France la noonu naa yàq waaye moo ko wéddi bi lay am si am nga fulla am nga fay Serigne moom ku nekk ci dëkk luñ koy defal feeñ ca ku feeñ Serigne Bamba doo ko suul yaa ngi Serigne Bamba jar ko fay ni lay dalal bu baax sa ngor ak sa yar sa toogaay bi rek ak sa diggante ak ñeent sama dikkee ñàkk lii wane na ko lii mooy Sénégal diggante bi àdduna daaw la benn suuf dégg nañu bu baax léegi dañuy jox kàddu gi sëñ Bassirou Mbacké mu Cheikh Modou Lamine Bara mu dalal desaay bi ñaanal leen su ko defee rek ñu doog a dugg ci waxtaan bi Mbacké sa doom yi ak sa rakk yi ñoo ni tey fii na toog yaa toog a xëy sa daal ko lu muy yaay Cheikh Sidi Mokhtar dañu bëgg a dégg sa kàddu rek ndax sama nuyu bu baax itam waa kuréelu ñaari rakkaay yi nga xam ni ñoo tànn bis bi tey tudde ko Serigne Abdoul Aziz ngir liggéey boo xam ne liggéeyoon na ko fi ñu war koo fàttaliku comme ni ko jii Jili waxee léegi kon ñu di leen ci sant bu baax ci turu Cheikh Sidi Moukhtar cant googu ñu di ko jaarale ci loxo Ahmed Fall mu jottali ko kuréel bi ak bokki taalibe yi nga xam ne dañoo nekk ci biir liggéey bi ñëpp di nuyu ma Madické Niang bu baax itam te di ko sant ngir bis bi ba mu tàmbalee ba nëgëdi ab taxawaayam ñëpp xam na ko ci du tey ji la jëkk di nuyu suñu wajur yi nga xam ñoo fi di sëriñ Mahamadan di sëriñ Abdou Samad ndax ñoom bu nu fi teewee rek ñoom la nu fi teewal seenu xir ci nun ak seenu xir ci njaboot gi ak seenu xir ci bëgg ñëpp booloo nekk benn moo waral seen ab toogaay fii tey kon ñu di leen sant bu baax ci loolu mboolem mbokk yi nga xam ne nañu fi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen sant sëriñ Sidi Muxtaar nag dafa wax ni bis bi tey suñu ko defee moom lañu ko defal ndax defoon nañu ko jox ko sëriñ Baara doyoon na sëkk ndax suñ joxee sëñ Baara jox nañ njaboot gi yépp ba ñu koy jox sëñ Baara yi sëriñ Abdul Aziz moo fi nekkoon moo ñëwoon taxawee su ko nun ñii yàlla dogaloon na teewoon nan ca ba yàlla dogal tey jii moom itam muy dox di dox ba ñu tudd ko bis bi kon loolu lépp dafay won rek ni kuréelu ñaari rakka yi ak waa ndar ci seen bopp cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci Serigne Touba waaye ci biir kër Serigne Touba it cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci sëñ Baara waaye cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci njabootu sëñ Baara itam kon daanaka jéego tey yii rek daf koy feeñal kon Serigne baa ngi leen di sant bu baax cant goo xam ni amul tàmbali amul yem. sëriñ Abdou Aziz nag nit la woon ko nga xam ne ñun fekkee nañ ci moom lu bari ndax nit su fekkee ni dund ngeen lu mat fanweeri at man ngaa wax ni fekke gaa fekke nga ci moom lu bari ndax bi nga xamee ne moo ñu yóbbu woon Jurbel ñu dafa jàng sëñ Abdou Aziz Abo mi ca la woon sëñ Abdou Aziz Ahmed ca la woon sëñ Cheikh sëñ Modou Baara ñun ñëpp moom sëñ Xaadim Modou Baara ñoo fa bokkoon nekk wante bu nu doon jox sax balaa muy jox sëñ Cheikh Aziz wala muy jox euh, sëriñ Sidi dafa ñuy jox ñun ba noppi kon nag loolu daf lay won euh, nu mu yore woon njaboot gi lu mu leen doon jàngal loo xam ne mën nañ ne tey jii mokkal nañ ko ba ñu ngi koy tari mën naa wax fii ma taxaw tamit ni kër gi nga xam ne ci laa dëkk moom ma ko jox nit bu la jàngalee jox la foo dëkk deseelu la dara te itam booba sama wajur mi ngi fi di dund te itam loo loolu jot nañ koo dund ak moom comme jotaay bi dafa dafa dafa dafa gàtt nag. te ñu bari itam war ci barkeelu te lu ñu xam Serigne Abdou Aziz bari na bari goo nga xam ne buñ ñu ko toppoon dana ñu sori lool ndaxte ni mu meloon ak njabootu Serigne Baara ak njabootu rakkam yi ak doomam yi noonu la meloon ak ñi nga xam ne ñooy waa sëriñ Serigne Touba tam képp ko nga xam ne njabootu Serigne Touba nga rek am na loo xam Serigne Cheikh bi mu demee di topp Serigne Mbacke Madina ba gisatu ko waa Daaru Xuddoos itam ka fa magoon di Serigne Aliou ak Serigne Dan ñu wëlbatu ko topp. cant goo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Sidi Moukhtar jëm si ci kuréel bii nga xam ne ñooy defar ñaari rakkaay yi tey jii waaye nag mi ngi bàyyi ko ci njabootu sëñ Abdou Aziz itam jëm si ci ñaari rakkaay yi sëñ Sidi Moukhtar tamit di seede ak cantam ci kanamu kuréelu ñaari rakkaay yii ak kanamu te mbokki taalibe yi toog ak seen mbokk yi toog ci ci ak cantam ci njabootu sëriñ Abdou Aziz ndax lii la ngeen gis ci sëriñ Abdou Aziz njaboot gi wëlbatiku ŋàbb ko sëñ Moustapha yor ko ba bàyyi ko fi sëñ Modou Baara yor ko sëñ Abdou Karim yor ko yàqu ci dara ba ngeen yegg si fii ba xalaat loolu di ko ko tudde am na nu ñu doon doxe sëñ Abdou Aziz lu njàmbaar ga bu rëy rëy itam du ngeen ko ñemee tudd ñi nga xam na ñoom la fi bàyyi kon nag sëriñ Sidi Muxtaar nee na mi ngi seere cantam ci njabootu sëriñ Abdou Aziz yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye mi ngi seere cantam tamit ci waa kuréelu ñaari rakkaay yi di ko jaarale ci Ahmed Fall ak maître Madické Niang waaye mi ngi seere cantam tamit ci bokki taalibe yi nga xam ne dañoo dëkkan dañoo dëkk Ndar mi ngi seere cantam tamit ci maire bi nga xam ne nee nañu lii ñu fi def moo ko fi def te lu fi waaye def moom nga ko defal ñi ngi ñi ngi sant gouverneur bu baax te di ko nuyu moom itam suñu xarit la ñu ngi sant autorité yi nga xam ne dañu fee ñëw ñëpp di bokk jigéen yi toog nag damaa wax bërki démb ne ñoom lépp lu nu tàmbali kenn du leen ca man te du tere ñooy togg di nu jox ñoo ñuy fóotal yére yi ni sol ñoo jur doom yi ñoo jur wàll yi ñoo jur président yi ñoo jur député yi ñoo jur ñëpp kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax te lépp loo nga xam ne mas nañ koo wootee rek buñ gestoo gis buñ gestoo gis leen suñu ginnaaw te def naa tubaab bi sax dañu wax ni foo fekk jàmbaari góor boo gestoo di nga gis jàmbaari jigéen ci ginnaaw kon ñoo ngi leen di nuyu te di leen sant bu baax te leen jot li nuyoo seen wajur wu tedd ba nuyoo seen seen sëriñ bu tedd ba xanaa rek di digal nit ñi ñu sax ci njub sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey doylu tey muñ tey muñalante te booloo nekk benn ndax képp koo xam ne da nga bëgg teraanga yi tey jii da ngay nangoo liggéey te nangoo muñ te doylu képp koo nga xam ne da ngaa bëgg teraanga ëllëg da ngay nangoo jaamu yàlla tey tey te doo tooñ te ku la tooñ nga jéggal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah su dee wóoru su dee ragal bu defee kenn du man de sant naa yàlla bi nga xamee ni su dee yaakaar su dee wóoru su dee ragal defuma ko lu dul sëñ Tuuba bi nga xamee ni yàlla dimbali na ma ba boole ma ak sëñ may wooye sama bopp taalibe sëñ Tuuba yàlla na ma nangul sama taalibe ñu ngi leen di nuyu bu baax di jël suñu nuyoo bu sell jox ko sëriñ Bas bu defal ma xéewal bu rëy ñëw wàcc sama kër kon sëñ Baara moo wàcc sa kër googu te kër googu kër sëñ Cheikh Gaynde faat ma la kër sëñ Modou Moustapha la kon sëñ Bas ñu ngi lay sant bu baax. te di ñaan Cheikh moom Lamine Bara sa waajur mu fayal nu la ñu ngi jël suñu nuyoo ak suñu ziyaar teg ko sa loxo ñu jébbal ko xalif général des mourides sëñ Cheikh Sidi Maxtaar di ñaan mu yàgg fi te moom de li may wax si moom rek la mooy dafay seral sunu xol di dalal suñu xel du nu aax am na ku ma doon wax ni ma léegi ban jàngat lanu mën jël ci àddina bi ba jëmale kanam àddina bi rawatina Sénégal ma ni que nanu def li Serigne si Sidi Makhtar wane mooy bennoo ba mu ñëwee rek lislaam bi dafa doon benn ñi ëpp solo si lislaam bi ñooy bokk tëbaskeendoo bokk koreetendoo bokk bés yi nekk mu teg si nag ñu jël xol yi boole ko ñu doon benn mu teg si ni ñoo jéggale di jëlale te di jaamu yàlla fu nu toll loolu de suñ ko jëfee rekk àddina bi jëm kanam senegal man jëm kanam bés bi nag sama bés la ndax jëmm ji dañu jaar fu bari mu wan ma boppam bu baax a baax ma xam li mu def si man gannaaw ba ma doonee taalibe ma Massamba man xam naa li mu def si man ñu bari xam nañ sama digganteeg moom dafa mat si man waajur ba mu mat sëkk mat si man sëriñ ba mu mat sëkk ñu jaar fu bari duma fàtte mukk àllarba jooju nga xam ni damay ubbi sama kabine toog ba yàgg saa rek gis sëñ Aziz Abo sëñ Sidi ak sëñ Basiru Jaxate ma ni ah sëñ bee leen yónni daf daf may daf leen yónni xëy na di ma jox ñaan ñu toog ba yàgg saa ni ma sëñ baa ngi si suuf si oto bi fan la jóge jumaada ma tax mu tax mu jóge jumaada ba ndakaaru ñëw ñaanal si ni sama avocat de barkeel na ñaan yooyu feeñ na si man bu baax baax na su ma bàyyi woon foofu ma nekkoon sax avocat bi dafa jaay gerte adina bi yëpp daanu daw si dugub si gerte ma dikkee ndax ñépp xam sama su gerte rek sax laa doon jaay dana barkeel ba ñépp ñëw di wax gerte ma dikkee noonu la sama layoo ñe wuuteeg layoo beneen avocat ndax lu tax sama layoo sëñ Touba mooy nekk ci biir sëñ Abdou taxaw ba sama lépp yëwan kon de man ku jar sant laa waaye alhamdulilah bi nga xamee ni su dee gëm su dee yaakaar su dee kóolite defuma ko ku dul sëñ Touba sëñ Abdou benn jëmm la danaa wax ni dafa taxawee cëru doomu sëriñ tubaa waaye nag lu sëñ Modou Moustapha def si moom la mu doon jóge si Cheikh Mouhamad Lamine Baara sëñ Modou Moustapha def ko si moom ba jëru doomu sëñ Touba la taxawee su ngeen seetee baatin bi dafa mat sëkk sëñ Abdou Aziz waxuma mu ñaanal la waaye ay bëtëb ni toq si yow nga am soxla am pas-pas boo xam ni danga koy diis barke Cheikh man Bamba bu faj xam naa si lu bari mosuma ñëw ni ko ñaanal ma nangam su ma ñëwee rek damay fexe ba xool ko tàllal ko sama loxo yi ma jàkk bëtam yi su bala may àgg fu may jógee dinaa yëg ni li may dox faju na waxuma yërmande ga waxuma ñeme liggéey ba seet leen ñaata dëkk la samp seetal ñaata taxawaay la taxawaay si ay daara tas ka si àddina bi sëñ Abdou dama ni taxawaayu doomu sëñ tubaala la taxawee bi nga xamee ni tudde nañu fii bés sëriñ Baara nekk na bés boo xam ni ñaari ràkk yi doole gu ma mas am bés boobu la yokk ndax moo ñëwal boppam wane fi loo xam ni waa Ndar ba tey ñu ngi koy fàttaliku kon bés bi fay na bés boobu ndax liggéey bu mu liggéeyal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bés bi dafa xat lool su fekkoon noonu xatul lu bëri dinaa leen jàngal si moom ay xisa yu bëri yoo xam ni xam naa ko si moom ndax daf ma jëloon rek taf ma si xolam bi ma koy xam booba étudiant laa ñu bokk benn avion may dem di jàngi wax ma nag jamono yi nga xamee ni ñoo bokk daayira étudiant moo nu jëkk dalal soxna maam Asta yàlla na ko yàlla yokk leer moo ñëw si moom mu aal ni fu nu jëkk màggale mooy tey fi nekk sëñ Moustapha finance foofu la lu njëkk màggale waaye nag ñu bokk avion jëm abigent ma gis que di ko tarbiya ba mu àgg Abidjan fu mu fa jógee wen ma def naa la sama xol bi def la sama doom bés boobu laa gëm ni sama yëf raw na moo tax ma dikkee fu mu tollu day wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba ndax gaa yu sëñ Touba yooyu ma dajal rek si la ma si laa gën xam ni yàqiinu sunu waa ji amul moroom suñu waa ji amul morom waxuma nga natt ka si doomam bi waaye natt ka si sët bu mel ne sëñ Abdou rek nga xam ne sëñ Touba amul morom ku mën jur Cheikh Mamadou Lamine Baara mu jur jàmbaar ju mel ne sëñ Abdou Aziz nga xam ne sëñ Touba amul morom jërëjëf sëñ. Jalwaani bisub tey bii seen maama ko jagoo moo ko yeyoo 83 Serigne fi daje woon ak moom muy 84 numéro 1 Serigne. Ahmadou Amina da la tuddu numéro 2 Serigne Makka Birama Khadi ka top topp sëñ Balla cokket seen maam ñëw taxaw ne xul wa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad julli ñaari rakka mo def tubaab ne le conseil privé a été réuni au palais du gouverneur de Layène Afrique occidentale française n'ayant pu trouver aucun motif valable le colonisateur ne peut qu'inventer des prétextes faciles pour la déportation du marabout non violent vers le Gabon dañ ko génne Mbàkke Baari mu dem Tunda Jeewal jaar Louga ñëw Ndar dem Dakar Gore Tabu indi loo wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ sidil muxtaar Mbakke yàlla may ko fan gudd ak wér-gu-yaram bàyyi ko lu bari suñ kanam ah, di sant di gërëm di ñaanal suñ waajur wi toog sëriñ Bachirou Baara xam ne yaramam ak jotam mayu ko ko wànde lim sëq ak sëriñ Abdoul Aziz Baara loolu moo tax mu toog fii ci jataay bi toog fi toogaayu rakku ci sëriñ Abdoul Aziz toogal fi magam ju baax di sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké man nag sama kàddu ci ndigalu sëriñ Abdul Karim sant rek la ndax sun baay bii sëñ Mahmoudan Mbacké li mu fi wax ci seede jëme ci sëriñ Abdul Aziz ak jëme ci njabootu sëriñ Touba ak seen relation ni mu demee yaakaar naa kenn mënut a wax lu kowe loolu sëriñ Abdul Karim ak njabootu sëriñ Abdul Aziz yëpp ginnaaw bi ñu santee sëriñ Sidul Muxtaar ñu ngi sant njabootu sëriñ Tuubaa yëpp sëriñ Mahmoudan Mbàkke ngi ni toog moom sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Samad mi ngi ni toog mu sëriñ Sohayb Mbàkke mu sëriñ Tuubaa sëriñ Ibrahima Mbàkke léegi la fi jóge mu sëriñ Fallu Mbàkke mu sëriñ Tuubaa sëriñ Maam Mor Mbàkke mu sëriñ Murtala mu sëriñ Tuubaa léegi la ñu jógee ñi ci des nag du leen tudd ndax njabootu sëñ Baar la njabootu doomi sëriñ Abdou Aziz lañ wande mu yore woon njabootu sëriñ Baara loolu moo tax njabootu sëriñ Baara gépp la dala ci Cheikh Mouhamadul Mouhamadou Baara ba ci sëriñ Xaadim Aw Ba kenn ku ne sa doom mi ngi fii ci jataay bi آه. وقتي سيرين عبد العزيز نك لو سوا جور لاي لو جافي وانا نياري نياري فراز رك لا تي واخ مو جوكو لي القران واخ ني تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويما رزقنا من فوق نيغا خامني داني واتش سين لال غودي غير جامو يالله te jàmm yàlla googu jubluwuñ te lu ragale suñu borom ak bëgg yërmandeem ak gër yërma ak ngërëmam te lépp lu leen suñu borom wërsëgale nag delloowaat nañ ko ci jàmm yi sëñ Abdou Aziz bi ci def sëñ Tuubaa dem ne washtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtara sëriñ ne lu ko mën a dal ci àdduna ak lu mën a doon même bu doon rocc rocc ruux sax nee na du ko jàmbat kenn ku dul suñu borom sëñ Abdou noonu la jukkoo woon kenn daawul xam soxlaam kenn daaw xam lu ko naqari kon loolu rek lay meloon Serigne Abdoul Aziz Mbacké muy koo xam ni diggante ak ni Serigne Touba amoon da dara Cheikh Mouhamadou Sow ba Cheikh Mouhamadou Ra kenn ku ne làq na ngërëmam làq ngërëm nag du joxe àddiya walla meloom meloom la ko ay waajurum yu bëgg woon fonke woon ba làq seen ngërëm doomu sëñ Baare yi fonk nañ ko ndax toog naa lu bari ci doomu sëñ Baara sëñ Baara jural boppam mais dañ ma wax ne man sëñ Abdoulaye sama mag sama waajur te loolu ku dem ba di la ko wax mooy amoon nga yërmande sarak jooju amoon nga cofeel ci sarak jooju amoon nga respect ci sarak jooju nawloo woon te sëriñ Basiru Baara mii bu ne bu seedeel ma loolu di sant jamono sëñ Baara gépp ci àndandoo gi ak lëkkaloo bi ñëw ci bis bi ñu tudd seeni waajur sant gi nag maa ngi jiital jigéen ñi ndax ñoom ñëpp a takk takkoo àndandoo nekk benn jóge Touba soxna maam xarit jiital ko ànd ak soxna musli loolu dañ leen ko sant leen gërëm di sant soxna Ndey Ndang Mbàkke Dadi mi nga xam ne Dakar jóge moom it ànd ak délégation bu mag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ah, li ci des nag taalibe lay gërëm ndax ñun buñ tekkee wala ñu amee lenn lu ñuy xoole taalibe rek ñoo tax ndax loolu maa koy jéglu ci sama waajur yi toog damay faral di wax ne kenn ku liggéey lu jar ñu lay ràbbul amul Sëriñ Tuubaa rek moo liggéey lépp waaye ku nu xooloon ci suñu nekkin ak suñ ak suñ jaamu yàlla xaj na kenn du nu jege waaye Sëriñ moo la yàlla defal ci liggéeyam ba nga xam ne mbuur nañu aar nañu suñ dara lu ñaaw feeñu ndax Sëriñ kon nag loolee war nañu war a jël bañ koo def privilège waaye nag ñu def ko une mission mission boo xam ni dañ koy roy Sëriñ Tuubaa royee ko ci sallallahu alayhi wa ci ni ko suñu borom diggee muy alquran karim wa sunnatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi gërëm taalibe yi di sant seen pasteur ak seen mobilisation ak seen bëgg Sëriñ Tuubaa ndax boo gisee mbooloo mi fi ñëw jóge fu ne seen gëm Sëriñ Tuubaa ak seen bëgg Sëriñ Tuubaa rek moo tax li ci des ci sama mbokk yi laa ko jëmale muy nañ nekk benn te bëggante ci fonkante te yéenante lu baax ndax ñun constance bi am mooy Serigne Touba kenn ku ne ci ñun bu ñu waxante rek Serigne Touba nga mën a jaayal sa bakkan comme constance boobu ñun ñëpp ñoo ko bokk war nañoo war na war nañoo mu def benn convergence jëme ci moom. ba lenn lu ñaaw wala lu bon wala waxante wala xalaatal kenn ku ñaaw daan suñu diggante loolu ñun suñ suñ suñ si sama mbokk yi nga xam ne war na leen wax ñoom laa koy digal sëñ Abdul Karim daal nee na kontaan na sant na gërëm na surtout kuréel gi ñi nga xam ne lu mat 15 jours wala 20 jours bis bu ne pare gisante ak ñoom ba lii am ni ba ba bés bi àgg si mu àgg li ci des nag danaa fi am ñetti nit ñu ma fi sant maître Madické Niang moom relation bi mu amoon ak sëñ Abdou wax naa ko ci màggal gi passé moom ñun ñii sëñ Abdou Aziz meloon na ne sax moom moo gënoon nekk doom sëñ Abdou dama fekk yu bari sa diggante moom sëñ Abdou Mbàkke Kajoor bi muy defar jumaam jee Madické Niang ñëw na fa indi ko un million de francs ca booba lu yàgg la woon mu ne ko nii nga sedd la sama xol ci jëm li may liggéey suñu borom yàlla boo tàggoo xol bu sedd ca Mbàkke Kajoor kon Madické ak sëñ Abdou Aziz buñ fi nekkoon di nettali seen relation ak liñ defante kenn du xam kañ lay doon te ku jabootoo kër sëñ Baara xam nga ma dikkee man waxuma sax ci diggante waa kër sëñ Touba mais diggante kër rek ñun waa kër sëñ baar xam nañ ko ci jàpp nañ ko te moom it jàpp na bu baax a baax euh, biñ ko tëddee sëñ Abdou daf ma woo mu ne ma sëriñ Cheikh neen sëñ Abdoul Karim bëgguma benn dërëmam def ci ndax bis bii nag maa ngi door am bis sama bisu bàyyi sama bisu sëriñ te yaakaar naa Ahmed Fall président kuréel bi du ma démentir ci taxawaay bu ma diggee naa taxaw fii ci bis ci bis ki ci mooy Mansour Faye Mansour Faye nag dama bëgg a leeral ñi fi toog yépp ne du bi mu faloo nekk maire wala ministre lañ am relation Mansour Faye maa moom bañ amee relation ëpp na vingt ans yàlla def muy nit koo xam ne nii keroog ca réunion ba ñëpp toog nañ ma seedeel ko da ah, nga Mansour de ni ma la xamee woon mooy nit ku woyof nit ku baax ci yaru ci fonk batam te lii mu koy seedeel dama ko dudd ak moom yàlla boole woon nu mu soppaloon ma boppam ma soppal ko sama bopp fu mu masaa fekk biir université day ñëw di ba tooñ marabu marabu nangam nangam nangam te xam nga nit du fàtte mukk université bañ bam bañ génnee foofu tam am na yeneen ñu bokkaat am na lu mu fi wax léegi nii <laughs> te te yàlla def na yàgg nañu def ay jukkumite jukkumite xam naa ko mës dem doosu doo ko xam waaye ñun ñax yàgg nañ ko def muy nit koo xam ne nii maa ngi ñaan nañ ko jàppale bu baax te jàppale kooku ngir sama jëmu ndax kuy sa nit rek di sa xarit boo amee say mbokk danga ñaan ñu jàppale ko ba mission yii yàlla may ko muy maire de Saint-Louis ak ministre gi ko président de la république jox yàlla defal ko ci réussite ndax kat bis bii biñ ko tuddee sama waajur ñun ñëw Ndar nam ko waxoon la daf na ma sëriñ Cheikh

teg ci taabal ji suñ ko wootee nee na dana dana signé loolu te yaakaar naa ne lam nu waxoon lépp nee na moom tam damay voyager waaye nag je ferai tout pour être présent te ma nga ne kon euh, wax sa respecté kàddu boobu mu waxoon def na ko kan Mansour samay mbokk ngi nii boole naa la ak samay mbokk danaa naa leen ñaan ndax sama ñaari waajur yii ak sëriñ Basiru sama waajur yi toog suñ la ñaanalee li nga bëgg lépp yàlla mën la ko defal ba mu jàll ci président de la république Macky Sall wax ko ci maa ngi bëgg dem moom it bañ xamante ak moom ëpp na ay at yu baree bare dama dama mas a ànd ak man yóbbu ko ci Abdou Karim mii ñaanaloon te ñaan googu Macky Sall du fu ma gisee fàttali ko fàttali ko moo laaj ma sëñ Abdul Karim te bi mu faloo tam lam nu njëkk a demandé mooy ñu indil ko sëñ Abdul Karim bi te pale ba ca boobu mag Basirul Xaadim aw bii ñoo àndoon yóbbul ko sëñ Karim mu ne ko lu ma mas di def yaa ma daa ñaanal kon maa ngi door a jot réew mi kon nag ma ñaanal sëñ Abdul Karim ñaanal ko ne ko dinaa ñaan sama ci ci yàlla ci yónnent bi sallallahu alayhi wa sama barke maam yàlla jàppale ba sa mission bii Sénégal yi teg la mu réussir kon yaakaar naa loolu war nañ ci am xel mu dal ndax sëñ Abdou Karim ku yàlla may la ku yàlla baaxe la te ñaan gu mu def maam Serigne Touba mën na koo jàll ci sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom nangu kon nag ñi ngi gërëm président de la république ci taxawaay bi mu taxaw ci bis bi ngir deux rakk yi waaye ngir suñu jëmm yi itam ngir jëmm sëñ Abdou Karim monsieur le gouverneur ñu ngi lay gërëm di la sant sa taxawaay sa woyof li ma li ma leen wax nag dama koo xam man dama duma ma seede ci nit mukk lu ma xamul wa shahidna illa bi ma alim na ndax bu ma dee sama bàmmeel man rek maa fay nekk te yaakaar naa war na maa rus sama su di bi nekk suñu gannaaw àdduna tax ba may wax loo xam nii ku ko dégg yaakaar ne dafa am leen lu ma sa bëgg li may wax dama am samay preuve leer xam ngeen ne gouverneur dans une région c'est une grande personnalité une grande autorité waaye li muy nekk autorité autorité démb rek sëriñ Bassirou mii ba mu ko woo ko dañ laa soxla da ko fekk mu doon def entraînement mais noonu la ñëw ci hôtel ba fekk na ba mu ñëwee non seulement lañ ko doon wax ne ko dañoo bëgg nga jàppale ñu lii def li dam dem daf dañoo wooyu waa kuréel ba mu ñëwee moom ci boppam lam wax engagement yi mu jëloon te loolu avant mu koy wax waa kuréel bi ñoo ko seere ne gouverneur disposition yi mu jël benn gouverneur mosu koo jël ci li concerne de Racké te ma nga ne moo ñëw deplace wu ñëw ba fa fa nekk mu fekk na nanu sëñ bi daal lu ngeen de Racké ndar yi bu soobee yàlla waxuma la accident mais zéro égratignure la zéro égratignure de kenn ku de xuree mon engagement am loolu la pas d'accident pas de mort mais zéro égratignure muy doomu d'Ara, ñu xamoon ko bi mu nekkee préfet te xam ngeen gouverneur en général préfet moi def le le véritable travail c'est le préfet qui le fait gouverneur en général day approuvé rek travail bi mu doon def Dakar nag ñëpp xam nañu kon ko yàlla defee ba mu nekk gouverneur de Saint-Louis muy doomu daara jàpp ci bis bii ñu tudde suñu waajur danañ ko seedeel suñu waajur yii fi nekk muy sëñ Bassirou Bara ak suñu ñaari waajur yi toog fii ñu sàkk ci ñoom ñu ñaanal ko mission bi yàlla def ko ba mu réussir di jaay Seydou wujjat Seydou Naama sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm ñëpp di sant Cheikh Amar aussi ndax moom it. taxaw na ci bis bi ngir jëmm sëñ Abdul Karim Mbacke recevoir nañu këram ne li sëñ Karim Mbacke bëgg lépp nama kawah, ko wax kon ci sun baat lañ ko waxee wande ci saasa la def la def kon ci turu sëñ Karim ñu ngi sant Cheikh Amar di sant tam njabootu sëriñ Abdou ndax sëñ Abdou Karim kat nit ku baax la waaye su amoon rakk yoo xam ne mel nañ neneen tam dana jafe loolu waaye rakkam yëpp yàlla dañoo daf leen a may jukko yoo xam ni ci seen bàyyi lañ ko jëlee doomu sëñ Abdou am na leen yàlla bindee te ku leen xam ku xam sëñ Abdou xam ne ay doom nuru nañ ko ci lu baree baree bare bare di di di di sant tam sëriñ Cheikh Baara mii xam ne mooy imaamu euh, Guy Mbind ci taxawaayam ci kër sëñ Bara ñun ñii ñëpp dañ ko naw xam nañ ne te jii de bu sëñ Bara dellu siwaatoon fii ci àdduna sax du am changement mm-hmm. parce que xanaa ba bu sëñ Bara ñoom mën naa changer mën naa changer daw làqutu wala mu defaat neneen waaye ne sëñ bii moom bu sëñ Bara ñëwoon moom nii mu mel du ko du ko changer mm-hmm. waaw co loolu waa guy mi ñëpp ko seede kon nag sëñ ñu ngi lay ñaan rek sa barke maam yàlla na yàlla may fanu gudd ak wér-gu-yaram di sant sëriñ Cheikh bar Laat mi nga xam ne ah, ñëw moo ko wax dara ndax daa représenté xalifa général des mourides waaye nag bu dul woon loolu daa dana am lu wax ci moom ndax ku ku bi yónni nag amoo droit nga wax dara ci moom waaye moom xam na xam na li bëgg wax daal bu dul woon rek représentant yi daal tey sëñ dana am lu wax lu wax nit ci <laughs> ñu koy gërëm di ko sant di ñaanal njaboot sëñ Bara gépp sëñ bi ñu leen sàkku ngeen ñaanal nu yéen suñu waajur yi ñaanal nu suñu xarit yee Mansour Faye gouverneur ak euh, Ahmed Fall bi nga xam ne moo jiite dara yi jiite nu rafet ndax ñoom disposition bi ñu ak ñun ni sëñ bar defoon bi ko tuddee mu am déclenchement Ben am beneen ampleur ñu ngi leen di ñaan mu ne ñu ngi ñaanal tey ni ñu ko Abdou Aziz nafiir deux rakk yi amaat beneen ampleur te yaakaar naa ñii buñ ko ñaanee amet loolu ngeen bëgg ci deux rakk yàlla dana ko def di gërëm nag di ko mujjee muy sun doom yii ah ñoom bi yëfi jege dañ nanu yéene suñuy waajur bàyyi lépp teg ko suñuy loxo ñun nuñ ko war organiser dañ ko organiser ñu bàyyee leen ko ca yaakaar naa ne jusqu'à maintenant zéro faute lay wax mm-hmm. seen seen seen tey lañ décidé mais sëriñ sëriñ Abdou Aziz ñoom ñooy link dajaloo nekk benn pour liggéey ñun ñu toog ah, di sant sëñ jili dégg nga li ñu wax léegi muy suñ doom di sëtëb sëñ Abdou yàlla may ko xam xam-xam bu rafet muy muy def benn conférence ci maamam te ku ko déglu da nga xam ne li muy wax ci xam-xam la ko teg ndax daf koo jàng di gërëm Aziz Fallou mi président sët moom it muy nit ku baax nit ku yaru nit ku yàlla dimbali nit ku yàlla baaxee sëñ bi daal en un mot mooy li ñu xam ne sëñ Abdou Karim moo nu waxoon pour ñu santal santal ko mbooloo mi santal ko mbooloo mi te te te duñ fàtte euh, son excellence Galas Kaltoom di suñu rakk di ku baax lépp lu sëñ kër sëñ Baara xewle du mën a kër sëñ Abdou waaye na kër sëñ Baara luñ xewle moom dañ ko wax na ko sax yow kër sëñ Fall nangoo nañ la fa léegi kër sañ Baara nga féete kon ñu ngi koy gërëm xam disposition ak euh, ni muy jàppale président Macky Sall euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu la sëñ Abdou waxoon ne euh, sëñ Abdou Karim sëñ Sidi Mokhtar moom mooy borom bis bi sëñ Sidi Mokhtar mooy borom bis bi moo nu jur ñun ñëpp. ca sëriñ Bas mais ba mu ko waxee ne mi ngi dem fii daf koo jox ndigal ne ko demal ndax xaj na man jàpp naa ne charge bi moo dis waaye nag bu du woon loolu moom ci boppam mooy ñëw toog fii ndax moom dafa am leneen lu mu seqoon ak sëñ Abdou Aziz Bara lu baree baree bare te nit bu nekkee sa mag ngeen am yu bari yu ngeen seqoon yàlla def mu génn àdduna yow yaa ko njëkk a kookee day mel ni moom rek moo fi nekkaat te ku xam Serigne Sidi Mokhtar ci bëgg nit ñi nekk benn lislaam ji nekk benn njaboot gi nekk benn loolu lay doxe lool lay jëfee yaakaar naa boo déglu discours sëñ Cheikh Bara tout le temps da nga dégg sëñ bi ndigal yi muy joxe ci delluwaat ci yàlla jàmmuwaat yàlla kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko fan gudd ak wér-wér sëriñ Maodo Cissé nag kenn mënu mën koo sant sant gu doy ndax fu jataay lislaam rek ma nga mm-hmm. yaakaar naa ne kon loolu buñ ko waxee ñëpp dañu seede loolu lu sëñ Maodo si la noonu la mel mm-hmm. kon nag sëñ Maodo ñu ngi lay ziar di kontaan sa sa sa teew fii sëñ Abdou Karim nee na gërëm na la euh, sant na la te ñu ngi waaj tam sa bis boobee njabootu sëñ Abdou njabootu sëñ Baara gépp ñu maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp waaleykum salaam wa rahmatulahi taala ko sox nee na ñun di ay murit rekk lañu nee na du ñu doon leneen lu dul ay murit nee na sunu yaakaar tamit Serigne Touba lay tàmbalee Serigne Touba rekk lay yem nee sunu yaakaar tey